leeral bu mu ci bëggoon a andi. parce que dafa wax lu am solo. et puis j'attendais à ça te démb rek maa ngi ciy waxtaan ak ay kilifa yoo xam ne ñoo ŋaañ ci wàllu ñoo ñoo ñoo maanaam ñoom ñoo nekk au niveau de Moldis lu ci mel ni comme bateau boo xam ne dafa sénégalisé so euh, le parole de cette personne. Mm-hmm. contre les paroles du commande du commandant dafa waroon nekk l'observateur sénégalais alors que dans ces entreprises. da ngay xool que ni dafa am un manque de ce poste maanaam amul benn observateur boo xam ne c'est un sénégalais. di wax ni carrément lii nga am droit napp lii amul droit napp ko. mais man je dis que loolu noonu yëpp su fekkee ay problème am na ci ci li li nga xam ne mooy liggéeyu marin ak risque bi ci am ak liggéey bi nu mu noobalee le problème c'est pas les travailleurs le problème en fait c'est pas aussi le chef les chef du moins je veux dire gis nga problème bi nekk ci diggante liggéeyu. marin pour port Mouldies problème bi fa nekk mooy intervalle kiy liggéey ak chef bi intermédiaire boobu ci diggante boobu am na dafa vaste mais dafa bëri problème waral tout le temps yu mel nii du fa jóg mhm. tout le temps da ngay dégg problème mu marin ak benn société alors que man je dis que loolu dafa fekk ni marin bi benn taxawaay bi mu waroon a am ci ñu taxawu ko ko ba nga xam ni moom yenn yi dootu ci mën a nekk naan da koy jima di ci di ko révolté wu dina am koo xam ne kat mu ne ah man kat bërëb bureau bii nii wala bërëb bii bon man su ma amee problème balaa maa dem di gis sama syndicat naa dem gis ñii parce que ñii ñoo nekk les représentants des marins. Mhm. te ñii ils sont reconnus par l' état. bi oui. ay étrangers ñoo ko moom. oui bateau bi ay étrangers ñoo ko moom. voilà ay égyptiens oui donc li ci kaw yëpp ñoom ñoo koy gérer. ñoom ñoo nekk foofu commandant ñoom ñoo fa nekk officier ñoom ñoo fa nekk second commandant ñoom ñoo nekk chef mécanicien ñoom ñoo nekk aussi tamit ñi ne ca kaw yëpp ñoom ñoo ko téye voilà et là et se trouve le problème voilà et là où se trouve le problème